asalaamaaleykum maa ngi leen di fay waa Dat di jiital sama nuyoo di waxate rek saa su ne jërëjëfa Serigne Touba jërëjëfa Serigne Touba di wax sëñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wér waaw bu ma nuyoo nag sama ñooñu pare maa ngi nuyu waa Médina yépp di jiital sama nuyoo nag sama superviseur man la Adji Gueye ma présenté man la Adji Gueye doomu Médina bokk ci membre CATB zone 3 bu Adja Bigué Diène nuyu sama leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba di nuyu sunu présidente Adja Seynabou Ba di nuyu képp ku nekk membre CATB képp kuy doomu Médina man Adji Gueye maa ngi lay fekk foofu nga toog di la jox sa sa nuyoo di la jox sa cër. waaw waaw jërëjëf ci question boobu ñun les femmes de la CATB les femmes de la Médina dañoo fas yéene jóg def massivement takku liggéey parce que président dafa woote émergence Cheikh Bane moom Médina dafa bëgg a def Médina émergence. kon duñ ñu jóg pour ñëpp ñuy doomu Médina jóg takku jàppale suñu leader muy Cheikh Ahmed Tidiane Ba jàppale ko boole ko bu le 23 janvier jote ñu dugal ko ci biir mairie bi parce que ñun moom doy nañu mooy suñu yaakaar Cheikh ba nag Médina ñoo ko jëlal ñoo ko tànnal seen bopp doomu Médina la Médina la juddoo Médina la yaroo donc moom nee na Médina lu mu am Médina moo ko gën a kon ñun dañoo jóg massivement pour jàppale Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu liggéey Médina waaw loolu dëgg la loolu suñu présidente moom moo ko njëkk a wax muy Adja Seynabou Ba moom moo ne bu boobaa ñun jigéenu Cheikh Ba yi cofeel gi ñu am ci Cheikh Ba ak jàngal liggéey gi ñu jàngal liggéey ñaq jariñu la ñu xam mu boobaa ñun ñooy débul débloqué 10 million joxal ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba caution ci kaw taabal bi ba Cheikh Ba du laal poosam loolu madame euh, madame kan da cee jaaraat ñun duñu tàllal kenn suñuy loxo dugguñu bureau kenn fëgguñu kenn ñàkk jariñu la ñu xam liggéey la ñu xam liggéey boobu ñu xam nag suñu liggéey boobu ñuy liggéey weer wu jot ñu am lu ñu coppas kës néew dugal ci suñu kalabaas ah wallaay sunu DG dafa xir rek ba Atoumane Wata Mbaye seeni Jóob bëgg ñoo débloquer cent million teg ko ci population Médina waaye ñun sax mën nañ ko ndax lu sunu kalabaas bi ñàkk jariñu rek la ñu xam loolu laa bëgg nag alhamdulilah bi ma dugalee ci wax jooju ndax maa ngi dégg doomu jekkoo di ci wax xam nga réseaux sociaux yi moom loo bëgg mu siiw rek jaar ca. Ah, du jàng jekko du jàng nee na Cheikh Ba dafa débloqué cent million pour militant am déedéet wax bu dofee nopp yu koy dégg war a wér Cheikh Ba cent millions yi mu débloqué dafa ne. pour la population médinoise les femmes de la Médina ñoo ko moom pour nag xam nga pour lan la pour liggéey comme li ma la waxoon may ma jën jàngal ma ni ñuy nappee ko gën chaque jour ngaan may ma jën may ma jën kaay ma wan la ni ñuy nappee daf ñu wan daf ñoo bëgg ñu liggéey ndax tey jii femme informelle ak euh, femme formelle ñëpp ci lañu bokk kon Médina ñun ñoo moom lépp képp nag ku bokk ci géew boo mënti bokk it ci nga bokk kay la ñu liggéey la ñu wax lee femmes de la Médina ñoo ko moom képp kuy jigéen te dëkk Médina juddoo Médina yaroo Médina màggee Médina ñoo ko moom amul li mu wax yàlla dafa def xaalis bi nekk ko suñu loxo xaalis bi dañ koy teg ci euh, bëgguma tur bi fa fuñ koy dugal mais dafa dañ ko teg ci benn service boo xam ne transfert d'argent la foofu ñu ko teg képp koo xam ne bëgg nga cee liggéey rek boo demee boo inscrire ci kattanu yàlla xëy du mutuel la képp koo xam ne boo bëggee liggéey boo fa demee inscrire dëkk Médina ñu jox la li nga liggéey wallaay azim déedéet cheikh ba xamul par parloo cheikh ba du dox ci lëndëm ci leer rek lay dox doxul dara lëndëm cheikh ba du corrompe kenn doxul daraay lëndëm liggéey la xam Médina la jàngee Médina la yoroo Médina la màggee fii la fekk baax ay diplôme am macha allah tubaar fa kàll lu mu am Medina la ko delloo si moom Medina ko ñor moom du jaan jekko moo dëkk Medina dafa dàkkante lay boppam jekko rek mais dëkkul Medina Ablaye Matar Diop dafa dëkk Medina ndax dañu ne politique Ablaye Matar dafa jóg ndey ju réew jóg Ablaye Matar jóob ku fi mës a Sénégal Dakar gii ma dëkk bi may xale ba léegi ku fi mës a takk ndombol tànk jàkk sañca ba lañ la takkalee ndombol ma Mariam Diop maxtaara yaayam léegi kooku mooy borom guddi jóob ak témbur jóob mataari penda jigal mi ci betuwaaru ndakaaru xanaa xamoon ne ab Matar mataar moom fekk gu ci booru géej jattu ko def ko gaal fekk salaan dina la mu def ko joow kooku lu mu wax day am ndax laaj ma li tax lëg daaw rey maamam maam ja maamam bu ne day samp day samp Cheikh Ahmed Tidiane ba Cheikh Ahmed Tidiane ba day samp lii la yaay nga sa bopp da nga ne gis nga fa mitinu Bamba Fall Bamba da doon mitin def ko ca jàkk sanca ba sampu ñu ko de chef de quartier sampul bàmba am na droit nag leader am di mitin mu ñëw woo ko foofu ca jàkka ja jàkka sanca ba sanca ba lébu yëpp ko moom di gisoo fa benn ndey ju réew gisoo fa benn sëriñ Dakar kii samp mooy sëriñ dakaar kii samp mooy Ablaye Matar Diop kii samp mooy borom guddi Diop ak Témbour Diop mataari penda jigal mi ci betuwaaru ndakaaru bañaluñ ko ko de bañaluñ ko ko de ko ko de bañaluñ ko ko de bañaluñ ko ko de mitin la ak ki ñëw wax mitin na guñu ñun mitin la wax dafa woote woon mitin dañ ko wuy si woon mitin mu def la muy def mitin mitin boobu gisoo fa nday ji réew laa la wax gisoo fa sëriñ Dakar gisoo fa benn magu lébu benn magu lébu gisoo ko fa kon moom boroom jekk boobu bu toogee di wax naan Ablaye mataat Diop sax su àndeek Cheikh Tidiane Ba du am dara waaye yàlla dafa bëgg a féete ba féete ak Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam Serigne Touba bëgg a féete ba féete ak Cheikh Ibrahima Fall waaye boo nee àndoog maire àndoog Cheikh Ba àndoog Seydou Gueye àndoog kenn danga bëgg a defar Médina waa ku àndul ak kenn kon baaxoo ko àndul ak kenn kon baaxoo nga ne xam nga ki ngay wooteel te yow àndoo kenn bu boobaa kon koy wooteel xanaa sa bopp ngay kàmbal wax day rafet waay nanu bàyyi bu leen nit bu leen nit diggee boo boo soxlaa ci nit joxu la ngat woo réseaux sociaux yi lu ne nga wax nanu bàyyi soo woowee nit ki téléphone am mu yéex koo jël nga commencé koo takkal étiquette nanu gore wax day rafet politique fair play la woon politique bu njëkk balaay wax de ci Alaaji Amet Jéen bàyyi bi nga Jéen politique fair fair play la woon dañ daan def camp bi camp bi parce que lépp Médina lay dellu si waat ndam lépp ci biir Médina ñu ñëpp ñoo bokk Médina nañ bàyyi xastante gi nan bàyyi waxante yu ñaaw yi nan bàyyi ku la fajal sa soxla tey bu subaa boo soxla waatee fajalul la ko nga toog ci réseaux sociaux yi di wax fii nopp fii lu waay bëgg wax rek boo woowee réseaux sociaux yi ñu wax Cheikh ba nag du tontu kenn ba Atoumane Wata Mbaye seeni Diop duk tontu kenn kooku maam Abdou Aziz ko oftu tudd ko te baax këru diine yépp a ko xàmmee mënuñoo boole kër diine yi cheikh ba bu duggee kër laayeen yi nga ne askay da bokk nga yegg Touba nga ne da caa bokk nga dugg biir Tiwaawan nga ne moo ko moom cheikh ba cheikh ba àdduna la gis nga mbese mbese gi gi mbele mbele coow la xam nga wax ji kañ la le 23 incha allah ku mën sa morom duma ñun xeexuñu te kaay ma xamal la nag amuñu interdiction fenn fu ñuy jaar ñun fu ñu neex jaar ñun nee naa du duñ dox ci lëndëm fu ñu neex la ñuy jaar Cheikh ba nee na liggéey la xam gis nga kiy liggéey ak kiy wax bokkuñu salaire ñun ñun waa CATB fu ñu neex jaar nañ ko bañ a def par parloo nank rek piano piano rek fu ñu neex jaar du jaan jekk ko mënul xam ku tàppet moom dëkkul Medina ah <laughs> moom xam na ko gis nga Cheikh Ba dafa liggéey jànge Medina yaroo Medina màgge Medina am teraangam ne Medina la koy def te kaay ma xamal la ñaari question Cheikh Ba du Sindiély Wade du Ablaye Wade du amateuru làmb ñun lii du làmb diggante maire ak futur maire du làmb mbapat nan bu yàgg bés bi rek la ñuy xaar heure bi cheikh ba du tas yaakaar barke Seydina Mouhamed dem naa màkk ba ñëw cheikh ba du tas yaakaar de jàppale rek la fi nekk mu ci social yi cheikh ba xale yiy jàng daf leen defal faveur boo xam ne man sama doom sax jàngul woon waaye léegi fi mu nekk nii mën naa ne intellectuel la ndax jamono yi ñun suñu jamono bu fi cheikh ba nekkoon intellectuel laay doon yàlla dafa def nag jànguma xale yi di cinq première yi xale bu ci am note du 15 au 18 bu yóbbul sa yaay màkk dem nga Fès wala mu jox la prix boo xam ne boo ko récompensé sa yaay yaa ngi dégg sa ñaq bootaay ren fer kon Cheikh ba jàppale na waaye jigéenu mit naaj waaw si sunu aide sociale yi tamit wax dëgg yàlla ñu ngi ciy def effort ndax ñun sunu calebasse yi ñuy def chaque euh, mois danañ ci def natt deux fois ci sunu calebasse yi di ci liggéey di ci lebalante ci suñu biir di ci liggéey ren képp kuy jigéenu Médina bokk ci Femme Saya TV dangaa takku tey ne sa borom kër wàcceel naa la xar di nga jënd sa borom kër xar ndax lan suñu kalabaas kon nag ñun ñun social suñu leader ñu njëkk a jàngal social ndax bi ñuy àndak moom boobu xii na xamuñu waaye ñun bi ñu xàmmee kimilikoo xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Bala moo ñu jàngal social jàngal ñu ñuy liggéeyee kon ñun liggéey lañu xam te nag seul le travail paye ñu ngi ci ordonnance yi te sunu leader bëggul ñu wax ko ñu ngi ci dimbal gi ku feebar ñu faj ku am problème ñu jóg jàpp lii fait la force waa waa CATB dañ lii l'union fait la force ñu ñëpp dañoo bokk ndey bokk baay kenn xamu ci kii président kenn xamu ci kii vice président kenn xamu ci kii euh, trésorier ñun ñëpp bokk ndey ak baay foo ñu fekk rek kenn benn lan boo ñu fekkee ñu ne suñu leader danga naan déedéet bërki démb laa preuve a boo demee euh, Russie ca kafega ga kafe ga kat dafa amoon ko ko moom lam fa def ba ñokk ñooñu génnee ko fa te ci Cheikh Ahmed Tidiane ba ne ko yow la monsieur le maire a fa nekkoon waa kafe gi nee nan suñu futur bii la ñu gëm waa kafe gi nee nan Cheikh Ahmed Tidiane Ba moom la ñu gëm moom la ñu dugal ci biir màqanaan sanca ba jeeg ko guy salaan bëgguma lim cëriñ bëgguma lim fukki pénc ak ñaar yépp dañoo boole massivement ànd takk takku jàppale Cheikh Ahmed Tidiane Ba sunu sunu sunu premier sunu grand sëriñ de Dakar topp suñu ginnaaw góoral ñu nag magal ñu fii kat ku fii def nag te boole woo ci nag euh, lébu gi xam nga nag doon lébu yomb naa mele mbele coow laa man lébu laa lébu laa lébu laa dafa yomb waaye ah borom guddi joob ak témbur joob ma taari penda jigal mi ci bétuwaaru ndakaaru lébu la de maram jëb waxtaara yaayam waaw tey moom sama journée bu ma gën a amee mbégte bii am na commencement waa am amul terminaison waa dat Médina maa ngi leen di sant di leen remercier bu baax a baax a baax a baax ndax xam ngeen ne yëf yi Médina ñoo ko moom faru leen fen partout leen fen ku leen woo ngeen yombalal ko ko trop parce que il fallait que ma éclaircir lii parce que bu nit ñuy toog xaalis génn na xaalis dem na fii te dafa doy waar te yàlla nañu yàlla musal ci waxim noonu pexem noonu pexem noon yàlla nañu yàlla musal ci pexem noonu yàlla bu mu mel ni nag noon bi mel ni la génnoon wax ñun duñu ay noonam ñun ñëpp ñoo bokk bokk dëkk Médina ñoo bëgg bokk ñoo bokk li ñu bëgg defar Médina moo ñu tax a jóg nan booloo nag defar Médina nan booloo defar Médina dañ ne dañu defar Médina kon nan booloo defar Médina kon daal am naa kontante tey am naa kontante franchement am naa kontante bu baax a baax a baax a baax pour leeral ne ñun suñu leader corrompu ñu ñun suñu leader jënduñu ñun suñu leader fayewuñu ñun suñu leader def ñu jàppale ñun suñu leader def ñu ne liggéey liggéey la xam à part liggéey xamu ko barki dem bi mu ñu jox exemple ci xaalis bi dafa ne kiy jaay sandwich ak kiy jaay euh, jus mën nañoo bokk boo leen boolee dafa leen entreprise entreprise boobu day dox ñun doomu Medina ñun y a pas de sous-métier ñun loo ñu jox ñu liggéey ko liggéey la ñu xam yaa ngi nii doomu Medina nga sa caméra bii rek nga jël def ko muy sa métier visé woo feneen de kon ñun li ci biir yëpp mënuñu ko wax tey ci émission bi maa ngi leen jox rendez-vous beneen numéro ak beneen faset ci man a Gueye doomu Médina ci Dat Médina Dat Médina affaire bi yow la xoolal li may waxatee ngi nii damay daaneel sama kàddu sama sama superviseur a ngi nii zone 3 ma jigéen songo mi ci jaan ma copine sama xarit a liggéey rek la ñu xam oh waaw lii la ñu xam waaw na oblige waaw loolu la di loolu de la ñu wax danga fekk léegi mhm. waa Dat Médina mhm. ñëw dalal si ma mhm. waxuma ko woon sax kenn ñun comme ni may wax tout le temps wutuñu buzz ñun yàllaa ñu may buzz ba pare waa dat Madina daf ma ñëwoon seet si nii tey fi ñu toogee di waxtaan juste par yàlla nga ñëw yow leer naa ne woowu ma la yëgoo nga ci liggéey ngay dox si nii kon ñun liggéey moo ñu ñor ma présenté leen ko sunu superviseur ngi nii sunu présidente euh, zone 3 ñu koy wax Adja Bigué Diène kii kenn dootu ko présenté te ndax xam nga tax kenn dootu ko présenté ji Alaaji Amet Diène la baayam tudd di me nekkoon meeru Médina àndoomu jigéen songo mi ci jaayan maam jaraa fi mbor ndoy ku ñëwee dañ laa déy kon nag waa Médina dat Médina it ñu ngi lay jël dalal pour nga nuyoo rek nuyoo bu gàtt ndax yow prévoir ma la woon sax kon nag salaamaaleykum <laughs> merci bisoori mbisi mbaaw aji aja aji Guèye bisoori mbisi mbaaw sama doomu sama copine d'enfance maa ngi lay nuyu. Malick merci beaucoup man sax de bala may dugg war naa nuyu tamit sama leader ba pare Cheikh Ahmed Tidiane Ba maa ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam du nuyu membre CATB yëpp bàyyiwuma kenn comme que dama cee yem rek te bëgguma jël temps bi torop di nuyu ñëpp di nuyu suñu président des femmes Adja Seynabou Ba ma dem kebe du nuyu képp kuy membre CATB rek maa ngi lay nuyu du nuyu doomu Médina yëpp nag bàyyiwuma kenn. Euh, ku bëgg adhérer CATB jafewul parce que ñun dañoo organiser Malick organisation boo xamante ne mën naa ne CA euh, ñi koy def ci politique bariwul fii ci Ndakaaru macha allah parce que Médina dañ koo xaaj ñun waa CATB quatre partie zone un zone 2 zone 3 zone 4 loolu ñëpp xam nañ ko man nag yàlla def ma nekk superviseur zone 3 suñu leader Cheikh Ahmed Tidiane ba teg ma fa comme euh, superviseur ma ko ci gërëm di ko ci sant ci confiance bi di wax ne képp ku bëgg adhéré wu rek am nañ ay membre ci koñ yi koñ boo gis am nañ fa délégué waaw koñ bu nekk am nañ fa lu mat 4 ba cinq délégué ba nga xamante ne pour adhérer foo taxaw rek mën naa ne sax kër yëpp am nañ fa membre biir si medina amul kër gooy dugg biir Médina te dooni kii sa yaatee la bokk donc kon adhérer du jafe koo laajte rek boo ne superviseur bi laa soxla rek dinañ la ne demal jënd fa carte de membre wala nga ne délégué boo gis rek nga ne ko dama bëgg adhérer CATB dina la jaay ci saa si carte de membre nga dugg adhérer bi CATB carte de membre cher te 500 rek la parce que pour bañ a teg kenn coono suñu leader bëggul teg kenn coono ndax xam na ne jamono neexul mais pour bañ a sonal kenn rek pour bañ nit ñi ëlbatikoo neneen daal loo xam ne demeewul noonu moo tax ñu oyofal ko rek. Euh, am na 40 délégués pas membre membre CATB yëpp euh, mënuñu la ne temps moo nekk si zone bu nekk mais zone bu nekk am na quarante délégués. am na quarante délégués yoo xamante ne ñoo fay représenté CATB ci koñ ñi waxuma la membre de waxuma la tamit militant waxuma la sympathisant mm-hmm. waaw. loolu émission spéciale bu ñuy def la xam naa Malick boo xamante ne dama la koy faram fàcceel ndax daanaka ñun euh, rakise nañ Medina de kër gu ñu amul membre bariwul de waa loolu li ma ci wax du bari ndaxte xam nga ne boo ne doomu amee jën jeexal na wax donc kon euh, defe naa kër googu kenn gënuma faa nekk lébu cheikh ba tey jii buñ ko mitingaloon bis pincum sànc ga googu am nañ droit la ñu defal maire boobu fa ne ñu defal ko Cheikh Ba te boobaa man Biége Diène doomu Ameth Diène man maay jiital Cheikh Ba defal ko loolu ndax doomu penc mi laa doomu sanca ba la képp ku ci am droit def ko am naa droit def ko te eggaguñ ci loolu te dinañ ci egsi bu soobee yàlla ndax Cheikh Ba nag bul fàtte ne ñëwoon na sanca ba de dugg na sañca ba duggati sanca ba duggati sanca ba sanca ba Cheikh Ba dafa miin sanca ba de macha allah kaar seen ba du doxandéem biir sanca ba képp koo xamante ne rek doomu sanca ba nga am nga droit tëgg ci biir péncum sañca ba googu Cheikh Ba defal nañ ko lu raw wër guy ci péncum sanca ba wax dëgg neex yàlla ndax kilifa sanca ba yi ñoo boot seex Ba ñi nga xam ne ay kilifa lañu ñu fa am baat lañu ah man de man ñi ànd ak Cheikh Ba laa xam ñi ànd ak Cheikh Ahmed Ba laa xam doomu pénc bi lañu ay kilifa lañ ci penc mi ay ñu am baat lañ ci pénc mi te lu ñu wax ci pénc bi looloy am ci pénc mi waaw loolu moom li ma ciy wax du bari parce que moom am na droit leader ñëw fa di meeting mu wëral ko guy am na droit leader ñëw fa di meeting mu dem woowal ko waa sengsem ñu ñëw bàkkal ko comme man mii bii ga jéen ma jéen jogu borom kaayin mii àndaw ma jigéen sangu ma ci ndaayal ni ma amee droit tey sama leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba di ñëw biir sanc ba ma def lu raw la ñu def bu ma woowoon waa seng-sengi Biram Gueye noonu la ñuy ñëwee bàkkal euh, Cheikh Ahmed Tidiane Ba ndax ñoom la rek la woon nag ak Ahmed Diène ak Aram Diène nag man may doomu Ahmed Diène kon bokk lépp lu ñu mën a def rek ñoom ci penc moomu man mën naa def lu ko raw egsee guñu loolu nag ndax ñun aa ah, waa ba ñu egg sax déggo maye la cheikh ba ku miin sanca bala ñun yéexuñu yow tamit présidentiel jàll na fi wal da nga fàtte loolu yow da nga fàtte loolu xanaa présidentielle jagle na fi lépp lu ñu war a def def nañ ko dañu toj Médina ba mu ne mbax ñëpp gis nañ loolu image yee ngi fi mbéy ngay fay mii ngay wax tey jii seng-sengi biram ngay moomu bu ma ko woowee ëllëg mu ñëw bàkkal Cheikh Ba ndax keroog ba ñuy meeting ci Blaise jaañ bi meeting de clôture photo yaa ngi fi archive yaa nga fa moo taxaw Cheikh Ba taxaw ma taxaw ci wetam du dëgg donc kon euh, loolu nit ñi ñooy wax rek xam nga nit ñi moom politique moom dafa bari ay wax daal ba nga xamante ne dee leen ñu wax ba wax lu amul sax mais loolu du dara ñoom doomu Medina lañ doomu Medina bu leen woo ñu wuyu si ko incha allah bu neexee yàlla. waaw li may tëjee mooy waa man dama ñëw rek defuma émission bi sax daanaka sama doomu ndey ko doon def ma ñëw yam ci ma kontaan ci lool na Bichri mi si mbaaw wax dëgg neex yàlla di rafetlu lii. mooy di kontaan lool ci waa Dak Médina ndax liggéey bii ngeen di def dafa rafet ci biir Médina parce que da ngeen di créer ay emploi ngeen di liggéey nag liggéey bu mucc ay macha allah kaar amul leen foo leen ni farax foo leen farul mm-hmm. ku leen woo ngeen wuyu ko may rafetlu loolu di leen ñaanal seen émission bi ngeen di def yàlla na ko yàlla yóbbu ful ko ba ngeen am tele ak ay rajo ci barki Seydina Mohamed may nuyu nag sama leader di ko wax ne moom mooy euh, macha allah dafa yaru dafa yaru moom du tontu lu ñaaw du wax lu ñaaw doxul ci lu ñaaw ba nga xamante ne ñun ñu topp ci moom dañuy roy ci moom sax nag wax dëgg neex yàlla ndax ñun nag dañoo judd ci politique màgg ci politique ba nga xamante ne tey jii ñoom fa ñu rootee ñun fa lañ meññee ñoom ñii di mbalbal nii di bari biir wi nii ci biir Medina gi nii naan ñoo fi ne ñoom fa rootee ñun fa lañ kon boog nañ doxal rek doxalin bu rafet te bàyyi wax ju ñaaw ji politique du xasse du lu ñaaw du saaga loolu du politique politique da ngay prouver li sam bàjjen wax naan du politique du course de vitesse course sa fond la di moins loolu dafa am solo politique du ay affaire lu salte du saaga du wax lu bon nañ bàyyi politique boobu ci biir Médina parce que Cheikh Ahmed Tidiane ba moom loolu bu camp boobu buñ ko ci woo duñ ko ci gis parce que xamul lu ñaaw du def lu ñaaw du wax lu ñaaw du dox si lu ñaaw bañ na ko ba bëggul kuy wax lu ñaaw nit donc kooku du mooy jël micro tey di xas nit wala di waxal nit lu bon nañ bàyyi ku àndul la nit xas ko wala nga waxal ko lu bon loolu baaxul nañ ko bàyyi waaw non mooy quand adversaire bi nga xam ne moo nekk Médina di xas nit ñi rek yor microom di wër mel ni ku réer ni dafa tiit nag xam nga boo tiitee da ngay wër di wax rek di kebetu bëri ba bëri ko ba deful dara day bari biir wi ñun nag di ñuy liggéey dañ ko wóolu dañ ko xam ndax Médina Cheikh Ba daf fi nekk di dimbali nit ñi di taxawul nit ñi ndax ñun du ñu ànd ak ku amul crédibilité ndax dañuy judd ci politique màggu ci politique yaru ci politique bu ñu demee bay àndax nit dañuy xool sa jikko xool say qualité àndax moom Cheikh ba ci qualité ak jikko lañ àndex moom ak ci générosité bi ci moom nga xamante ne miskin yi la fi nekk di dimbali yërëm nit ñi di def nit ñi defal nit ñi ci sutura donc kon ñun xamuñu lu ñaaw politique boobu la ñuy def politique sociale di jàppale waa Médina di wax ne Médina daal seen leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba daal mi ngi seen gannaaw nekkul seen kanam de seen gannaaw la nekk di leen tàllal loxo di leen wax ne dafa bëgg defar Médina émerger ko yëkkati Médina foo mu bëgg yóbbu suñu maire bi nag yàlla na ko fa yàlla yóbbu ci barki Seydina Mohamed 23 janvier incha allahu rabbi bu boobaa dinañ euh, gàcce dina nekk fañ ko xalaateewul woon Cheikh nag ba nag bu boobaa dinañ ko jiital incha allah jiital bu rafet dugal ko suñu maire yi jox ko Médina dénk ko ko ndax jot na nag waaw doomu Medina soxla nañu ko jot na parce que prouvé na wane na yorul budget yorul dara poosam la yor ak salaire am di ko bokk waa Medina kon bokk waa Medina war nañ ko delloo njukkal ñu koy ñaana yàlla na ko yàlla defal jàmm. merci Malick maa ngi tëj nag di nuyu ñëpp di la wax aji jëre jërëjëf merci beaucoup ci introduction bi nga ma defal nii ci sa émission bi di la wax jëre jëf yow moom ñëpp xam nañ ne Cheikh Ba sa mag la sa lépp la. ba nga xamante ne lii nga def tey kontaan naa ci trop. comme ni ko ñuy waxee. commerçant mm. bi dañuy bëggee ñun Cheikh la ñu xam am. commerçant bi dañuy bëggee ñun Cheikh moom. Cheikh la ñu am waaw Cheikh nu ñu àndal. waaw ñun les femmes de CATB képp kuy jigéenu Médina. waaw képp kuy jigéenu Médina. Mm-hmm. maa ngi lay woo ñëw leen ñu ànd changement dafa am. Mm-hmm. ay waay waay jàpp leen ci nañ leen jël nag dimbali nag liggéey dañu ne liggéey mm-hmm. nañ leen liggéey boole ànd defar. wasalaam wasalaam waaw aji merci beaucoup merci Malick ñoo ngi nuyu waa Médina yëpp di nuyu suñu présidente des femmes sama jumelle na bu Ba di ko wax ne ñoo ngi ci gannaawam di ko jàppale bu baax heure bu gëstoo dinañu gis ci gannaawam bu neexee yàlla ndax moom liggéey rek lay def wax dëgg neex yàlla fi magam teg tànkam rek moom it fa la teg tànkam jërëjëf maa ngi nuyu sama mbokk superviseur yëpp ak képp kuy kilifa nekk bi CATB maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay merci beaucoup waa Dak Médina jërëjëf wasalaam